bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk internet bi Sénégal ak kontaan bu baax a baax ñëw ci seen émission bi nga xam ne saa su ne lañ koy defee muy taxaw seetlu tey nag ñu ñëwaat fi nga xam ne moom mooy boutique bu centre médical Al Afia muy Cheikh Djibril Diallo ñun nag miin nañ ko loolu saa su ne boo gisee ñu fiy ñëw dañoo am ndeysaan li nga xam ne moom mooy partenariat suñu diggante ak moom moo tax comme ni ma leen ko waxee woon ni ma leen ko diggee woon noonu laa koy defee chaque semaine incha mu jàll ci li nga xam ne moom mooy tay nak ñu ñëwaat fi nga xamni ne moom mooy boutique bi bi nga xamni ndaysan moom la defar pour ñi nga xamni moom ay client tam ak client bokku bokk internet yi kon bravo boobu ñu dugg ci waxtaan bi da ngay nuyu Cheikh Djibril Diallo Cheikh Djibril nuyu naa la salaamaaleykum Cheikh musa ñu ngi lay nuyu di nuyu mbokk internet yëpp di nuyu wa Sénégal yëpp mhm, ñu ngi nuyu wa Sénégal yëpp ndaysan moom sa su ne nuyoom dafay gàtt te am solo loolu Cheikh Djibi nak tay comme ni wax tay ñu ñëw ci produit bi tay ci produit bi dañu dañu ñëwaat dañu euh, defoon ñu ko fekkee loolu dañuy baaxantaan pour rappeler waat nit ñi rek ni boutique bi mi ngi exister rappelé waat nañu aussi garab yi ñu ngi fi ñu waxtaanaat tuuti ci garab yi ndax garab yi bu ci nekk rek am na lu muy jëriñ waaye balaa mooy dugg ci njëriñu garab yi lan mooy euh, njëriñu ki nga xam ne moom mooy faj lan mooy njëriñam waaw xam nga comme li ñu koy waxee rek képp koo xamante ni yaa ci alquran mm-hmm. mooy rokeetu charia di ci alquran mm-hmm. mais am na ay feebar yoo xamante ni parfois yàlla moo ko wàcc ci gàncax yi mm-hmm. mu doon loo xamante ni dafa naturel mu doon loo xamante ni maanaam bu ñu ko jàngee ba teg ko ci yoon seet ka seetantal ko képp koo xamante ni mu ci yëngu ak feebar bu nit mun daan bu fekkee rek bu feebaru dee bu gën a ki jëlee insha allah mhm. mhm. ci gis saako bu baax baax tawfeex baax baax ak feebar bu mu ci doon jëlee insha ci doon kon Cheikh su ma déggee bu baax ci li nga wax mooy euh, gàncax dara du moom ci wàllu faj waaw parce que yàlla danaan euh, bépp réew ba mu ti gis ci àdduna wàcc naa fa ay garab mhm. yoo xamante ni yi mën a saafara ñuy dund ci dëkk boobu. soit ñu xam ko wala ñu bañ koo xam. mais gàncax nekk na loo xamante ni lu naturel la nekk na loo xamante ni lu sell la nekk na loo xamante ni ci yërmande yàlla lay wàcc. parce que lépp loo gis tamit lu jóge direct. bokk la ñi nga xamante ne dañ ko rax. dañ ko rax waaw. lii nii nekk na loo xamante ni naturel la. te mhm. amul benn effet secondaire. Mhm. te si a baax incha allah. ci foofu laay jógee daal di ñëw ci li nga xam ne moom mooy garab yi ndax garab yi nga ci gis yëpp lépp ay plante la te nekk ay garab yoo xam ne dafa naturel amul benn effet waaye nag li nga naan loo xam sàmba sàmba gën laa xam boppam Cheikh Jibi moo ñu gën a xam garabam dina daañu dinaa jël garab bu nekk yëkkati ko ñu xool ko xam naa nag damay njëkkee ci li nga xam ne su ma ko gisee man jus de pomme laa ko tegoon waaye tamit am na pomme waaye lan lay faj ci Jibi waaw bi composant mooy ay fruits lañ ko defaree. ay ñi nga xamante ni euh, dañoo am yaram. bu ko wàññeeku. bii nii moo gën ci ñoom. moo gën ci parce que dañ ko jëlee euh, lem dañ koy suukaree. Mhm. te aussi efficace na te na tamit macha allah. naturel na macha lem dañ koy suukaree. te képp koo xam ne da am yaram. boo bëggee jeex boo ko jëlee. waaw incha allah rabbi di nga ci gis tawfeex bu baax. di nga ci gis tawfeex baax a baax. kon mbokk mi yow mi may dégg seetaan ko yaa ngi koy dégg kon yow mi nga aussi xam nga koo xam ne leer na ni macha allah bëgg yaramam jeex jëlal numéro bi 77 187 57 57 boo ñëwee ci centre médical Afia boo ñëwee mun la joxee li incha allah rabi sa aji dina faj Cheikh ji bi garab gi yàgg naa dégg nga koy wax miracle Ahmadou Sawda dama ko yàgg nga ko dégg gis nga ko bii lii garab la boo euh, euh, boo xamante ni na mhm. euh, trop boo xamante ni pour yaram mhm. parce que yaram tamit aussi parfois am na ay foo yoo xamante ni parfois gis day ñagas wala du normal wala day diw diw yoo xamante ni xalaal wala genre mel noonu mhm. mais bii nekk diw boobu bu xalaal la mhm. en même temps aussi tamit day dundal yaram te day dafa baax ci kaw daal incha allah si say kàddu dafa mel ni garab bépp yi nga xam da nga ko assuré te garab yi dafa naturel waaw nit doo jékki-jékki rek di jéem ci li nga xamante ni xamoo ko. xamoo ko lépp looy def day fekk mu doon loo xam ne xalaat lu jiitu avant tout lu dagan. Mm-hmm. ba pare mu doon loo xam ne naturel la parce que nit. ci li ngay yëngu ci mën a jaamu yàlla mais defal la bu mu lor benn askan mooy na loo xamante ni luy wéral la na doon loo xamante ni aussi tamit lu naturel lay doon loo xamante képp ko gis tamit ba jël ko dina ci gis boobu bu baax incha allah mhm. Cheikh ju ma li nga xam ne ba tey ci wàllu yaram la damay ñëwaat ci li nga xam ne moo am solo mooy savon savon bu ne gis nañ ko waaye Cheikh Djibril Diallo moom dafay na créer benn savon boo xam ne bi lan bi savon euh, bi ko defaree euh, base de plante. base de euh, plante huile na tulukuna. tulukuna bi sama bi savon tulukuna. Mhm. baax na trop ci yaram te day wéral te day dundal tamit yaram. te aussi day setal tamit peau bu baax a baax incha allah. day dundal yaram day setal peau. waaw te aussi sakkan na tamit trop. boo koy sangoo tuuti rek boo ko ci defee tamit day xëpp. day xëpp day xëpp te aussi boo koy sang tamit dañ ma ci jaaraat yow mi may seetaan dégg na bu baax li chef bi wax kon ba tey ñu avancé rek ndax li ñu wax ni comme li liggéey bi dañ cee ne waaye nag gis naa ci loo xam ne góor ñi wax dëgg yàlla farataal nañ ko te jamono ji feebaru sexualité bëri na te gis naa ni yaa ngi jaay garab yu mel noonu. am na boo xam ne benn mu ngi nii mën naa ko yóotu wane ko après ñu doog ci ñëw. garab bi lan moo ko tax a jóg ci wàllum góor. waaw bi gel la bi nga xamante ni pour góor ñi nga xamante parfois dañuy sentir seen kanam day dellu. day dellu waaw day dellu wala bu ñu am benn puissance bi wala bu ñu see du ñu sentir dëgër bu mu war a dëgër du ko dëgëral. Mhm. lii nekk na loo xamante ni bu ñu ko jëlee normal. Mhm. day gis euh, da koy delluwaat pour mu meloon normal. da koy yokk daal. en même temps aussi tamit da lay force tamit pour mën a dëgër. pour mën a li nga xamante ni parfois dañ sentir day xaw a nooy wala xaw a yor noonu. d' accord bii da koy delluwaat place am normal. temps da lay mayaat puissance. da bok mi yow ñu koy seetaan bu am benn complexe waaye ñëwal jël garab bi. am na ci ay façon yu bëri am na ci ay thé am na ci ay poudre boo yoo xamante ni pour loolu la am nañ ci yoo xamante aussi tamit lenn la pour loolu. Mhm. damay bamtuwaat garab boobu damay bamtuwaat yuy defar ndox ak yuy defar euh, yëpp daal incha allah. damay bamtuwaat rek yow mi seetaan mbokk mi yow mi ndax sa jàngoro boo ko doomu aadama kenn du ko xam ba di ko faj yow mi am jàngoro boobu tamu mu leer na ni teew nga garab yi numéro bi. xaaral ma jox la ko 77 187 57 57 boo ko jëlee boo ooyee Cheikh Djibril Diallo incha allah rabbi sa aaju dina faj nit bu bëggee faju day wax jàngoro kon Cheikh bi ñu avancé ci li nga xam ne moo ci wàllu tey ndax gis naa ni mag ñi bëgg nañu tey te léegi sax xale yi ñu ngi koy utiliser ma gis nga ciy jaay anam bu ne yaa ngi ko ciy jaay moo xool am na bii gis naa fi bii gis naa fi bii ñu faram fàcce ko xam ba xam bu ci nekk lan la ci ñu njëkkee ci biir. waaw tey bii nekk na tey boo xamante ni teewu prostate. loolu prostate en général góor la ëpp lu muy dal. Hmm. Euh, te góor bi nga xam ne dafa dem ba am ay cinquante ans jëm kaw. Hmm. ci la commencé di feeñ. Hmm. mais nekk na tee boo xamante ni. da koy nettoyé day nettoyé naqari yu set. te système day dem ba nit ki day normal. waaw am nañ ci tee am nañ ci tamit sirop. am na ci tee am nañ ci sirop mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nii tee moom moo nekk nii. sirop bi moo nekk nii kon mbokk internet yi képp koo xam ne soxla ko rek incha allah rabbi ñëwal boo ñëwee di nga gis li nga xam ne dëgg yàlla mooy njëriñ boo ma jógee ci damay jàllaat ci leneen tey ndax boîte yi day day tolloo waaye dañu nuroo cheikh ji bi bi teel a pour ballonnement moom ñi nga xamante ni seen biir parfois day def ngelaw wala ñuy faral di gaz lu bëri wala ñuy sentir lu mel ni hémorroïde mhm. bii nii efficace na trop bii efficace na trop te euh, ay sachet ci biir yoo xamante ni ki da ngay jël comme genre lipton la mhm. te boo koy naan mhm. du la sonal te di nga mën a tamit lépp loo lekk tamit di mën a dina mën a rees te amul amul amul coono daal te macha allah efficace na trop te plante naturelle man nag dafa am loo xam ne bëgg naa ko fàttali Cheikh Djibi Diallo man am na loo xam ne dama ko fekkee ci kër cheikh bi mu koy def yàgg naa koy dégg mais mosuma ko woon gëm waaye cheikh bi man keroog dama toog sa kër di liggéey ak yow am benn femme boo xam ne dafa ñëw ak sagom am benn femme boo xam ne dafa ñëw ne dafa ànd ak ay rab waaye cheikh bi man ma gis ni ni ko jëlee dugal ko ak sa frère bi ngeen jël ko téye ko def alxuraan bu bëri ci moom damaa gis ni ndaw si dafa ñëwaat loolu doon nga ci mën a ñëwaatee waaw pour wan leen rek li alquran di naan euh, fa qaatilu awliya ash-shaytaan inna kayda ash-shaytaan kaana daifa parce que shaytaan nekk na loolu daif lu néew kattan ci kaw ku gëm yàlla parce que moom dafa amee ay euh, ñoom seen fan dañu am ay tour mm-hmm. te xale bi dafa jëmoon ci examen moo tax affaire yi daaneel ko. dëgg la en général bu daanoo woon nañ gën a yóbbu ci tuur yeeg yooyu façon bu nee yóbbu nañ ko mais gisuñ ci benn résultat. Mhm. keroog bu mu ñëwee noonu yaa ngi fekk papa ji gëmul sax. Mhm. parce que ndax dina wér. Mhm. parce que nee na façon sëriñ bi nekk yóbbu na ko. genre mel noonu. façon maamu loolu témoin. waaw wallaahi azim mooy yàlla day wane carrément alquran. yëmal ak leen. te nekk na loo xamante ni boo ànd ak taxawaay ànd ak ragal yàlla. lépp looy def day barkeel. loolu dañ ciy dellu di sant yàlla bu baax baax mhm. parce que loolu yàlla moo ko moo ñu ko jagleel mhm. mooy nit kii lépp looy def rek na doon lu dëgg ci yow mhm. na doon loo xamante ni lu wér la parce que loolu moo am solo lu wér lépp loo mun di def même mu fekkee suuf nga jël sax nekk nit ki am jeexal euh, am jëlal nga sangoo ko même bu fekkee yàlla rek nga ciy gis yàlla day barkee loolu moo tax bu ñu ko tegee loxo mocc ko noonu alhamdulilah jinne bi ci la tuub mhm. bàyyi ko complètement mu nekk ak sago boo xoolee ñoom gëmeewuñ ko mhm. lépp boobu léegi chaque jour ñëw di gërëm ak sant man leen sant leen yàlla mhm. parce que bii yàlla moo ñu ko jagleel xam nga te yàlla amaan na nii la doon nattoo pour ngeen jaar fi xam nga pour wan leen carrément tour yi ngeen di créé. Hmm. amul benn njëriñ. amul benn njëriñ bu amul njëriñ avancé nañ bu yàgg. Hmm. boo xoolee bërëb yi nga xamante ne tour yi foofu lañ nekk. ñun ñoo a tardé. Hmm. kon tey jii ñun la yàlla def ñu doon xalifatun fil ardi ci kaw suuf. ñun la yàlla def ñu doon njiit ci kaw suuf. ñun la yàlla ormaal ñun la yàlla tamit fonk. te yàlla ñoo sàkk ñun doomu aadama sàkk jinne yi pour nañ ko jaam. mais sàkk ñu pour ñuy signé tey ñun ay pacte wala genre bi noonu. mooy ñi nga xamante ne parfois dañuy créer ay genre jaaro wala ay genre xaatim ñu ne ay xaatim Souleymane la wala ay xaatimu Umm Musa rek genre mel noonu di mel ni yenent yooyu ay njabarkat lañ ñoom te yàlla mooy naan ci suratul Baqara wama kafara Souleymane walakin kinna shayatina kafaru Souleymane néew doon njabarkat te boo xoolee tey jii njabarkat bi bëri tey jii dañuy toog naan xaatim Souleymane bi lu mu ci def da ngay gis dèjà loolu nekk na loo xamante ne affaire chatan parce que tur yooyu ñuy jël ñu euh, ñuy composé ci biir aayaat yi di dagg di dugal ay yeneen tur ay turu shayatin ngay doon wala ay turu malaaka mhm. ñu naan ay turu yàlla da turu yàlla turu mhm. yàlla quatre vingt dix la mooy asmaallah xusna yi mhm. mais ñoom seen fit bu ñu fit bu ñuy yor man moom la ñu jëkk yéen parce que alquran yonent bi sallallahu alayhi wa avant muy génn àdduna na mm-hmm. alxuraan bi fu mu yem nii fi mu koy yem. Mm-hmm. yokkuñ ci dara wàññiwuñ ci dara mais ñun ñoo ngi yokk ci leneen indi beneen façon xam-xam di ko si def di naan carrément nit ñi nii la fekk du noonu. moo tax toujours nit ki boo demee ba xamatoo fooy teg sa tànk delluwaatal ci alxuraan ak sunna damay ñaan ñi nga xamante ne dañuy def roquetu charia mm-hmm. nañ gën a góor góorgóorlu. gën a tamit dem ci média bi yéen nit jàppale leen parce que lii nekk na loo xamante ni. dañoo war a yee nit ñi parce que nit ñi xamuñu. am na ñoo xamante dañoo dañuy jaaxle. bëgg nañ faju mais gisuñ ñii di faj. comme ni ñu ko war a fajee. Mm-hmm. ñenn ñi ñàkk pexe moo mooy tax parfois ñu dem ci membre yi wala ñu leen defal ay sacrifice di leen reer wala di leen sottiloo ay soow wala ay deret mm-hmm. ñii di def ruqya damay ñaan yàlla jullit ñi nga xamante ni jàng nañ xam nañ li alquran ak sunna mm-hmm. pour commencer yëngu jàppale ci nit ñi bu baax a baax pour ñu mën a xeex cheytaan pour ñu bañ a amati accès ci doomu aadama di leen sonal comme ni leen sonalee incha allah waaw mbokk yi loolu Cheikh Djibril Diallo wax am na solo trop waaye nag am na beneen beneen bi am solo mooy ko man dama fekkee benn fois boo xam ne États-Unis la jógee ñu ba fii di faju waaye femme bi da daan tox danaan naan yàlla def nañ boole ko benn copain boo xam ne daf ko bëggoon dugal ci li nga xam ne ñoom ñooy seen wàllu religieux waaye nag frère am jaaroon ci jibi jibi faj ko ba mu gisal boppam frère bi daal di koy indi waaye depuis bi ñu ko indee man femme bi fan lañ def naa interview waaye dafa ne Moussa bu génn sama li nga xam sama image waaye témoignage yi ko ñàkk bañ a def femme delluwaat na waaye nag Cheikh Jibi loolu mu nekk témoignage bu am solo bu femme bi te man ma fekkee ko wallahi azim ak koor gi maa ko fekkee kon Cheikh Jibi femme boobu lan lañ ci mën a leeralaat ba mu leer ndax ak jamono ji fan la femme bi waaw euh, Cheikh Moussa delluwaat di sant yàlla rek. parce que mhm. yàlla ji moom mooy wéral amaan na moom moo bëggoon loolu jaarale ko suñu loxo. Mhm. mooy tey ji boo xoolee moom nee na am na copain moom ànd na amaan na yàgg foofu joué na ci. Mhm. ak aussi tamit parents yi aussi tamit jàppale wuñu jàppale wuñu pour lan parce que xale yi parfois même bu fekkee foofu la juddoo foofu la ñu yara foofu la ñu màggee mais foog ñu jàppale leen ci côté diine bi xamal leen kuy seen borom parce que ëllëg euh, yonent bi sallallahu alayhi wa wax ci benn xadis mm-hmm. kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi mm-hmm. ëllëg waajur bu nekk sàmm la mm-hmm. mais pourquoi parents yi tey jii ñu am benn complexe bi xale yi léegi France lañ leen njëkk a dugal tamit loolu lay jëmal làq ak ñoom di leen jëmal dund loolu dund boo xam ne du seen dund seen dund comprendre nga ñu ay jullit yëfi jullit lañu war a def waru ñoo def yëfi kaafir wala yëfi naafiq parce que loolu noonu bokk na ci bii nga xamante ne moom moo njëkk a yàq société bi. Mm-hmm. tey jii ñu bëri tey jii mais fu mu mënta dem seen doom foog mu am benn habillement boo xamante day def ko moom daal. Mm-hmm. tubaab muy yaay muy doom ji ak genre mel noonu. Mm-hmm. côté diine moom ku ko ciy jéem a def ñu ne da nga waane. boo xoolee moom léegi nee na lépp loo xamante ni xeetoog caaxaan. mënatu ci dara mënatu ci dara. waaye na naan. bàyyi na tux mhm. même copain bu doon jéem force ba di nga dugal sa religion bàyyi na ko mhm. te nee léegi bu toogee waxtu sax mhm. xaw ko taar te julliwu sax day mel dafa am bu ko def kon loolu dañuy delluwaat di sant yàlla parce que alquran amul lenn lu mu bàyyi parce que yàlla danaan ci alquran wala naziru min alquran naa wa shifaa wa rahmatul mu'minin wala yazidu walimin illa xasara alquran bàyyiwul dara kon loolu Moussa Mhm. lii nga xamante ni moom la yàlla dogal ba mu ñëw fii ba ñu traité ko ba yàlla dafa ko tawfee mhm. dañ ci sant yàlla parce que yàlla moo ko jaaral suñu loxo mhm. loolu sant yàlla bu baax la mooy li may wax rek Moussa ñuy def nii nekk na loo xamante mission yenent la mission yenent la pourquoi nit ñëwee lu njëkk avant tout da nga koy xamal kuy sa borom nga jéem ko tekkiloo luy téeréem jéem ko moytuloo luy shirk ko kuy sa borom ak nan ngay jaamoo sa borom ak nan ngay aaree sa bopp mooy doa yi nga xamante ni man la jullit di war a def ak jullit na la war a comportoo moo xam ci ko euh, moom ci boppam la ci jëmmam moo xam ci environnement bu muy dund daal mhm. incha allah mhm. di ñaan yàlla képp koo xamante ni loolu da ko dal mhm. na delluwaat ci alquran ak sunna na jéem a dem xool yenn centre rokk yi pour ñu dem fa jéem a jàppalante moom incha allah dina tegaat ci yoon bu neex yàlla incha allah kàddu rafet na macha allah loolu la Cheikh Djibril waaye nag comme li ñuy wax ni li ñu dese ci waxtu bëreetul waaye nag Cheikh bi loolu man dama ko fekkee moo taxoon tey mu bëgg mu def ci ñu waxtaan naa ci ndax gis naa fi ay tey ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñi nga xam ne ñooy patients yi bu ñu nangu woon wallahi azim mbokk yi ngeen gis lu yéeme ci Cheikh Djibril Diallo bi il fa que rek gars yi nangu bu kenn nangoon wala ñaar pour ñu filmer ko ngeen gis lu doy waar waaye nag nee nañu nit moom boo ko xamul dee koy woowee ee eh, waa ji nag euh, du question que dama ko xam dëggantaan mais damay liggéey ak moom ndax dañuy ñëw di ko bett man du may ñëw tournage dama ne ko ñu ngi ñëw signé nañu partenariat rek waaye saa amee envie rek xool su ñëwee sa tërëm dañuy filmer rek di teg parce que saa yu ñu bëggee teg dañuy teg parfois ma fekk fa yoo xam ne man sama bopp damay yéemu kon mbokk yi képp ku soxla centre waa centre médical Afia bi nga xam ne moom Cheikh Djibril Diallo moom mooy borom te moom moo fa nekk ak ay frères am ak ay sœurs am ñëpp ci biir jëlal numéro bi 77. 187 57 57 wallahi xasim laa lay wax ni boo ko woowee moom ci boppam dina la fajal sa aajo bu ko mënee su ko mënul dina la yabal feneen si kàddu da ngeen dem ku ma fees demal ci yeneen centre yi ndax du moom rek moom moo ko fii def waaye nag yëwal na ci yaatu na ci kon Cheikh Jibril balaa may dem mu jox la kàddu nga tëj waaw alhamdulilah am solo la mm-hmm. mooy ñun ñëpp jàppalante mm-hmm. surtout ñi nga xamante ni ñoo bokk métier bi. Mm-hmm. ñoo war a gën a yaatal affaire bi pour mu gën a yaatu. Mm-hmm. parce que lii dana loo xamante buñ jiital rek alal. Mm-hmm. wala genre mel noonu. mais nañ jéem a defar xol yi. defar jikko yi. pour nit ki mën a xam kuy boroomam parce que mission la boo xamante mission yenn la. dañu war a yaatal. war a xamal nit ñi yee leen ci lu bëri pour ñu mën a moytu. parce que bàkkaar bu gën a rëcc bàkkaar mooy bàkkaatu bokkaare ak bàkkaatu fenn. te boo xoolee tey jii boo demee ci yenn maamoon yi tey jii ñu lay defal shirk lay doon. Mhm. fen rek la ñuy def. Mhm. seet képp ku ko def ci weeru koor bi jàpp ne yow waree mhm. seet parce que képp ku seetlu ci weeru koor 40 jours loo jaam yàlla yàlla du nangu te boo ci faatoo ñaanal nga yàlla safara nga jëm te yàlla mu yàlla moo xam seetlu la moo xam dugal la ay xalwa la moo xam ay listaxaar la jullit dëgg-dëgg boo bëggee def dara moy lo bo beugé comme par exemple xol dara sa digënté ak sa soxna bo nga bëgg a wala sa digënté ak liggéey liggéey wala genre na da ngay japp julli ñaar rak mm-hmm. yalla mom xamna luy sey yene parce que mom mo la gëna jëgé sa bu mu xol mm-hmm. day def rak bu nek fatiha bo su sujjootee nga ne yalla ya xam yalla ma lay ñaan ci li may julli ni bu fekkee dafa gën ci ma mm-hmm. gën sama diiné gën sama njaboot ak sama wër yalla yalla mo yombal loolu yalla bu fekkee li ni gënul ci ma yalla yalla ñu jox leneen lu ko point yàlla ji moom moo gën a xam li nekk sa xool moom moo la gën a jege dem sa boobu xool kon boo ko waxee yàlla am na dégg-dégg te incha allahu rabbi dina la taxaw bu baax a baax du question que da ngay tëdd gént wala gis ay yenn façon déedéet yow kii nga nga xamante ni moom moo leen danay seetal wala danay defar ay des saxaar ak genre day nelaw ba yandoo bu yeewoo xool li nga xamante ni moo la gën a neex wala li nga xamante moom moo la tiital pour mën a lekk sa xaalis ak genre mel dina génn la ay sarax te yooyu dèjà shirk la yooyu pacte la te loolu nekk na loo xamante ni xaraam la kon nañ ko mooy incha allah di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may dégg-dégg ak topp mm-hmm. yàlla nañu yàlla teg ci yoon siraatul mustaqim mm-hmm. di baalu àq ñëpp mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñu yeggal weeru koor ci jàmm ak salaam incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah rafet na wala rafetit na laay wax mbokk internet du Sénégal TV yéen ñi yéen ñi bëggee waa Sénégal TV yéen ñi bëggee aussi ñi nga xam ne ñooy centre médical Al Afia ndeysaan Al Afia bi rek ku fi ñëw di ne Al Afia ci kàttanu suñu borom ñoom seen lépp yàlla la seen lépp lépp lépp yàlla kon bokk internet bi yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy topp saa su ne am nañu mbégte tamit bu baax di leen dëkkal saa su ne li nga xam ne moom mooy image yu centre médical Afia te xaadim mi nga xam ne moom moo nekkoon ci caméra bi waaye nag yéen ma xamal leen ci yoon bi de bu ñëwee ngeen am sérieux kon sëñ Khadim jërë ngeen jëf kon nag du ma fàtte monsieur je vais remercier Roujda mon assistant qui est à côté la moi jaajëf isam loof ba beneen.